mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan seen émission Kouthia Show ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag fas yéene ànd ak di gërëm képp ko xam ne yaa ngi seetaan waaye tamit di bég ci képp koo xam ne yaa ngi ñuy xel tey nag euh, moom mooy alxames xam ngeen ne alxames bi nag euh, dafa tombeek li nga xam ne mooy màggalu poroxaan gi màggalu euh, suñu yaay suñu maam di soxna jaara ñuy ñaan tamit képp koo xam ne yaa ngi ca yoon ba yàlla na yàlla teg ci yoonu jàmm nga dem ak jàmm ñëw jàmm te lépp luñ fa ñaan ñu nangu ko mu doon ñaan goo xam ne day feeñ ci ñun feeñ ci ñi nga xam ne dañ koy ñaanal kon ñu yox alhamdulilahi rabbil alamin ci alxamesu poroxaan bi mbokk yi nag tey dina ñëw ci gën a yaatu fës gi ki nga xam ne mooy Alassane Dramane Ouattara ma ngay wax ci nag li nga xam ne mooy double nationalité coow li mu mën a indi ak gàcce gi nga xam ne képp koo xam ne yëkkati nga ko da ci am gàcce ndax loolu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla day tax ñu téye nit ki wala ñu bàkk téye nit ki dana ñëw ci ki nga xam ne tubaab bi nga xam ne moom dafa sës rëkk nekk géwél bi nga xam ne mooy géwél famille Viviane Wade moom tamit dina ñëw tey indi ay wax yu leer ci double nationalité boobu nga xam ne moom la ñu jëm maître Madické Niang tamit dina ñëw wax ci li nga xam ne moom mooy ca double nationalité ba waaye ñuy ibbee moom mooy Abidjan ndax tàmbali nañ ko démb tey tamit dinañ ko dalal muy àllarba ak alxames lay am ci biir semaine bi incha allah mbokk yi tey loo moo doon suñu programme ci télé Futur Média ñu ànd ceeg ki nga xam ne nag mooy Pamba euh, Pape Samba Thiam nekk ci réalisation centrale bi feggoo ki nga xam ne nag moom mooy euh, Abdoul Aziz Thiandoum ci li nga xam ne nag moom mooy son bi yaawa gervé ci ñaari caméra yi serré ak large moom la yor moom kese kon ñu ngi koy gërëm di ko sant Lamine Camara moom moo taal lumière ba lépp tàkk ànd ceeg ki nga xam ne moom mooy maman Henriette ci maquilleuse bi ka nekk nag ci ambiance ba Go Fall ak Abdou Fa ñoo yor percussion yi ci biir émission Kouthia di gërëm tamit tutu ak ki nga xam ne nag moom mooy Jamil Ba bi nga xam yor mooy yor li nga xam ne mooy protocole ak dédicace du grand informaticien nuyu tamit Fatima Evans bi yor coordination rédaction Kouthia ak waa régie loolu mbokk yi tey bu ñu ko xoolee ba tënk ko mooy doon suñu programme ci émission Kouthia Show Pape photogramme du troisième millénaire gërëm nañ ko fii jëm nag mooy dem seeti mbay sponsor moom ñu wax ñu tey lan la ñu indi si sponsor waaye mbokk yi tey alxamisu poroxaan bi nar naa nekk alxamis boo xam ne ñëpp cee ànd ak bégte ak contentement kon ayca nañ ko seeti <laughs> bu leen fàtte ci kanam danaa ñëw ci ki nga xam ne mooy caba caba animatrice ba nekkoon TFM euh, nekk ca Walfadjri gilaawaale bi nga xam ne moom laa ko jàppee toog leen loolu ci kanam lay doon ba may ñëw ana nga mbay mu dégg ko <laughs> nga fecc ko nga dégg ko dégg dégg dégg ko dégg ko <laughs> dégg ko renteel te te te te ku ne jàppal ma la gaz renteel mbay mbay kaay arrangé bagage dañuy liggéey eh, bi bes kii mooy bes cocktail bi xew si jamono bes cocktail bi xew si jamono bes goyaaf baa ngi nii bes bes goyaaf mbay mbay liggéeyal te bàyyi caaxaan yi waaw lii mooy brique bi. bi nga xam ne léegi 1000F lay jar mbay. kii foo dem 1000F lañ ko jaay yii 300 wàññi nañ ko. tàjjil naan mango bi la day daw sa biir te kaa jël goyaaf bi. waaw waaw waaw xale bi xale bi xale bi. voilà neex na mbay ranger lii mbay mbay ranger lii bii 300 lay jar léegi bi 1000F lay jar wax nañ ko fépp nag bu ñu ko jaayee beneen prix bañal storm chèque. mbay mbay fii yëpp ngi xeeñ goyaaf non seulement boo ko naanee man ni nga xam ne woon nga dend sax mu ngi xeeñ fii digg li wuy sa kër am nga am na goyaaf garabu goyaaf dama woor moo tax si mu woor noonu ñam ci woor dama woor ay laal <laughs> waaw ah, maa ngi si woor strong chèque <laughs> <laughs> Stronchek waaw Stronchek nga nii bés nga nii. bés ak Stronchek grand ku fay. non ci même njaboot bi la. kan moo fay. non dama ne ci même njaboot bi la. kan moo dama ne booy yow liggéey rek. kan moo fay. man liggéey laa bëgg seq yow léegi. kan moo lay yow benn relation. déedéet dama teg ne nga teg bés nga teg kii bés nga teg. Stronchek waaw. ba pare nga teg ban bii. trois aram yow. kan moo lay fay. waaye yow liggéey <laughs> booy xoolal man du ma booy foo ma de bu ma oti du ma sa morom de non dama lay wax du ma sa morom de non eh xoolal du affaire caaxaan de eh wuy eh, du affaire caaxaan de du ma sa de. ana Ablaye Pouné du ma sa morom. waaw eh xam nga Ablaye Pouné bu baax. xam nga ko ah. xam nga Ablaye Pouné xam nga Ablaye Pouné. nga xam ne moom mooy poulet ak ginaar ak li nga xam ne mooy yàpp. baaramu so kaan yi. xanaa Jamil Ba du sa xarit. booy liggéeyal mbay te ngaa liggéey te bàyyi gi. baax na man foo de. kaan yi baaramu so kaan yi. tomate. Eh, eh, si di Lamine baax nga si dof. mu tardé. Oh, laaj. yëpp ci baaramu so mbay mbay baaramu bi macha allah mu ngi dox de.

lii nag mooy baara muso bi nga xam ne moom mooy baar mbay dañuy liggéey de man foo ma de. non ay caaxaan. non xool après bu liggéey ba pare. waaw baal ma dégg nga kii mooy baara muso bi nga xam ne mooy baara muso bi safal ginaar. waaw baal ma dégg nga ak kanaara xam nga kanaara dafa sëcc. biiram moo ko mën a safal. ana sumbulaa bi ana sumbulaa bi ana sumbulu bi. wuy ma wuy ma waaw kay waaw nañu wax si àll kale yow ndekete da ngaa nopp sumbulu sumbulu bëggu la sumbulu démb gis naa la gis de ay waay jamit ba su nekkee ku ca sa xarit la bàyyi doo la bàyyi wute oto bu bu la boobu sumulu la si si ginnaaw bàyyi sumul sumulu xaaral ma wax la le 29 dañuy Gueye Teranga mooy takk sumbulu. waaw ñoo xam man sumbulaa laa wax waxuma sumbulu. <laughs> Ah, dama ne sumbulaa saa yi ma ko yore sama nga koy doog a saa waaw ba tey sumbulu. waaw sumbulu eh. dama naa la xamal ñaar na bàyyi dama koy nee sumbulu dama koy réglé en ma en ma manière dama koy réglé en ma manière. waaw. dégg nga. maa koy réglé à ma manière bàyyi subul complètement parce que subul du xam dof. <laughs> mbay démb nee laaj mbay. subul paap <laughs> booy bu wax di paap budde. xam nga xam ma dégg waaw baal ma ma dégg nga. non du ay wax du ma sama baal ma dégg nga. wax eh, eh, di ma dégg waaw ana ana googu kii daan àndal. kan. ah Ablaye. ah album bi làmb nëpp ci commencé sax papa nee na ma fii si c'est normal n'est-ce pas c'est dama defay cicatrice est-ce que France sañ na bañ a si daan diis cicatrice maanaam dama jël artiste yu gën si benn ma defeen ay archive maa leen mën te ko gën a xam billaahi salabe fi gën a ñeereel til te ñaata dama bëgg réeréem dig nee leen dig dinañ ci la dañu réeréem biir classe lu si yoonu cimetière ak ay église fekkee ni nga ragal mooy maye fit nga fen rek di am la jéem a wax sama ethnie est-ce que booram tuur ba ma caayal seede yi même Jésus mënu ma jaxas ak doo am dara ni candidat wu PSI kon bul as fis yow maa kan nga doo MC di ko Messi moom yéen yi du commettre ba doo mbéj kii no bàyyi ma def ko domestique ba doo rey kii no bokk sa pointi jugal fii tamate bu xaj la ba si lexu aatu réer na saa su ne eh, dégg sama baat fu ne xaj bu dee bi doo tàkk ni gaz bu jeex taatu nen bu seet la am nañu mbégte ak contentement bu mag di gërëm ñëpp waaye tey di gërëm suñu sponsor yi nga xam ne ñoo ñuy gunge émission Kouthia Show ñu ci profité nag di ziar suñu papa Alaaji Cerno Samba Sam Moura bi di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram alaaji Cerno euh, Madani Muntaga Taal ziar nañ ko di ziar tamit alaaji Cerno Bokar Alpha ba nekk ca war a fonde Serigne Habib Gaye mu tax mu demul sëñ Mansour si ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram vraiment di ko sant di ko gërëm bu baax ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Moustapha Sy Jamil bu Serigne Mansour borom daara ji euh, di ziar tamit ki nga xam ne nag Ah, soxna si moom yaayam di soxna ah, yaay xaar ca Tiwaawan ziar nañ ko bu wér ziar mbooleem ah, taalibe boo xam ne nag wax dëgg yàlla Serigne Habib Gaye moo xadamu Serigne Mansour si ci journée prophète Mohammed bii nga xam ne nag moom la doon keroog fële ca le 8 ca Euh, buntu këram wax dëgg yàlla bég na kontaan na trop ne nag wax dëgg yàlla gouverneur taxaw na fa taxaw bu am solo Macky Sall yónnee ko lettre boo xam ne wax dëgg yàlla pour féliciter ko ci organisation ne ñëwoon nga ci bésam boobu moom Serigne euh, si borom daara ji sant na mbooleem taalibe boo xam ne yaa ngi woon ko gërëm mbooleem taalibe bu jógee Gambie Mauritanie sous région bi ñëpp ak ña jógee ci bésam boobu sant na leen gërëm na leen alaaji Cerno Nuuru Taal ci Sacré ñu ngi koy gërëm alaaji Cerno euh, Abdourahmane Bari nekk ca Bogol borom la set le 8 ak le 9 euh, gàmmu ngay am foofu ca bogal euh, Pape euh, Safalka émissaire sëñ bi moom la gërëm di ko sant moom tamit ci bés bi ni mu taxawee alaaji Cerno Hamdu Aaw xale bu calaaw dëkk ca Booru Njum ziar nañ ko ak alaaji Ousmane Ndiaye Waaliyu Kaamin nekk ca fële nga xam ne mooy HLM Aglu Mous di doomu Ngaay Peexe ak soxnaam Adja Ama Bousso Cissé la grande commerçante ziar nañ ko suñu papa suñu sëriñ alaaji Basiru Baara Mbàkke nekk ci HLM Paris gudd ak wér gu yaram Go Fall taalibeem mu ngi koy gërëm Abdou Fa Gueye tamit di wax euh, sëñ bi ñoom ñëpp ñaanal sëñ bi am fan bu gudd ak wér gu yaram ndax am na solo trop sëriñ Abo Mbacke imi sëñ Fallou Mbacke ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di ko wax nag ma toog mu wax mati mu bi may kokkali ndax bés bu ne mu ne ma euh, la nga wax gëmu ko sama wax la gëm kon maa ngi wax sëñ mu taaj mu maag euh, mati wax dëgg yàlla wax ni moom wax dëgg yàlla kala ci féete suñu ñaar ndax loolu am naa ci lam-laamee sëriñ Mbay Si Mansour ñu koy ziar di ko gërëm di ko ñaanal fan fan bu gudd ak wér gu yaram di ko ñaanal jàmm ak euh, wér ndax bu wéree rek wax di ko yàlla defal ñu euh, ko yàlla defal fan bu gudd ak wér gu yaram am mbégteeg ci Serigne Mama Sougou waa daan waaliyu kaamil nekk foofu ca Kébémer ak mboolem taalibeem gërëm nañ ko sant nañ ko sëñ bi di ko ñaanal fan bu gudd ak taalibeem yëpp ñu ngi koy ñaanal ki nga xam ne tamit mooy Abdou Karim Mangane ak ñaari soxnaam Sadio Fatima nekk ca Daara Jolof ziar nañ leen ak Thierno Alpha Boyania bi ñu ngi koy ñaanal moom tamit fan bu gudd cardinal Théodore Adrien Sarr bi jiite bi moom tamit fan bu gudd lañ koy ñaanal di am mbégte contentement ci moom ak euh, teelu bi nga xam ne mu ngi koy teelu ñi nga xam ne nekk ci yoonu chrétien maître Fatima fa responsable politique nekk PDS foofu ca Ndar moom ngi koy ñaanal euh, wax dëgg yàlla fan bu gudd ak ndax tamit ku sopp émission Kouthia Show la ku ci bàyyi bi nekk responsable politique boo xam ne ba mu jàppee ca parti ba mu nekk ba léegi bàyyiwul am nañu mbégte contentement bu mag ci ki nga xam ne moom mooy Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Budi di yeewoo ca Tiwaawan ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram di am jàmm ak xéewal ci moom waaye tamit di ziar ki nga xam ne mooy soxna Adja Kinne si bu Serigne Cheikh bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si xalif général bi nga xam ne moom moo jiite euh, tarixa tijaan yi ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér yaram di am mbégte contentement ci boolem xalif généraux boo xam ne yaa ngi ci réew mi ñi nga xam ne ñoom ñooy xalif généraux yi yal na yàlla defal jàmm muy bu Tiwaawan muy bu euh, euh, bu bu bu bu Cambérène ak bu Amareen yi ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar ah man dama xamul loo leen ree ñii de sama ay kilifa lañ rek fekkee ne li ma leen tudd moo tax ngeen ree de comme léegi diggéen gën a xàqataay ziar nañ la ñoom ñëpp nag yàlla dafa leen jàmm nag waxtu yàlla may leen fan bu gudd rawatina nag fee nga xam ne mooy ca Saalum de alaaji Basiru Touré xalifu daaru Rilwaan alaaji Serigne Touré Serigne Basiru Ndaw ca daaru salaam ñoom Maxi Touré ak Moodu euh, Moodu Touré ñoom ñëpp waa daaru salaam yëpp yal yàlla defal jàmm di am mbégte contentement ci képp ku ñu seetaan kon mbokk yi dañuy dem seetaan yi ki nga xam ne mooy maître Madické Niang waaye balaa ñu egg ci maître Madické Niang démb ci guddi dama doon doxantu ji di entraînement tasanteeg benn xale bu jigéen boo xam ne animatrice la ca télé bi nga xam ne mooy wal fajiri di caba am fa émission moom caba bi nga xam ne te wal la nekk bi may entraînement di ñibbi jóge sama kër di dem doxantu bay wal yàlla moo ko weer ci buntu wal fajiri moom caba animatrice boobu otom daa dee paan ba otom paanee nag maa ngi koy gis caba non seulement def na lu yàgg ibbiwul pochette lambul poche mouchoir la jël tekki ko génn ci ñaar téeméer ma ngay wax téléphone am na ku mu doon àbb xaalis pour jënd essence yàlla nattu kooku kooku yorul dara mu ngi ànd ak beneen animatrice bu ñu naan Fabel kooku toog ca oto ba ñuy puus oto ba oto ba bañ a tàkk maa ngi woon taxaw di seetaan scène bi ak sama yërmande ak sama solidarité ak la ma nekkoon seen ex collègue nekkoon ca télé ma daa dee gis caba mu ñaqatoo xet ma ne ko lii la mu ne ma du ma sa oto dama leen di rek ma daa ñëw puus oto ba ndekete oto ba essence la manqué oto ba dafa paan wax dëgg yàlla ma koy ñaawlu ndax lu toll la wal fajiri oto ba nga xam ne moom la caba yor non seulement oto ba day nuroog leket ndax tuuti deuxièmement oto ba am na problème moteur dañ koy pousse mu tàkk waaye ci sama xam-xam ak sama yëg-yëg man ñaan suñ yàlla suñu borom ne ko yàlla sagal ma oto bii bu fekkee amul essence sama loxo bi mu ko ci tegee yàlla na tàkk ba ma ko ca dóoree pousse oto ba oto ba si lay soog a tàkk may xamal ne waa Walfadjri ndekete ñoom ñëpp seen oto yi buñ ñu ko gaaree foofu day paan ndax pour ñu lijjanti paas liggéey si sax day metti <laughs> caba pare gu ma ci moom dinaa ñëwaat ci moom ndax Walfadjri foogoon naa ne seen wax ju bëri gi yëpp problème essence duñ ko am mais Sidi Lamine Niass maa ngi lay ñaan ci jëbu rasulaay dimbalil caba di ko jox boo essence parce que oto boobu da may nural oto xam ne bu ko puusul rek du tàkk te lii day na waar faabel la ba ko wooyee laaj si ku moom oto bi dafa lànk ne moom xaalisu tata la yoroon tata la doon jël da doon gunge rek borom oto bi ndekete caba moom ci boppam changé nañ tur bi caba paan la tudd tuddul caba caba paan ak faa paan ñaari animatrice yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla boo leen puusul duñu tàkk kon puus leen <laughs> ñu seeti maître Madické Niang te caba dinaa ñëwaat ci yow parce que am naa élément bi Pape Samba dina ma ko wan Madické Niang ci question nationalité ak double nationalité lan moo koy faj jërëjëf jërëjëf wax dëgg yàlla yal na yàlla defal jàmm ndax parce que bu ne ngeen toogaanu ma ci buntu kër gi te bu leen neexoon ngeen war a liggéey war a ngeen am loo leen di def gërëm naa leen sant leen yal na yàlla fayal dëgëral seen baat waaye nag euh, damay waxtaan ak euh, Moustapha Diakhaté bu la président de la république dafee nga nekk président groupe parlementaire bu APR dafa am nooy waxee ndax Seydou Gueye biig fii la toog faram fàccee. waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Mamadou Diop Decroix moom ci boppam moom Seydou Gueye nangu ne am na ñaari nationalité waa yow la ngay xeex ki nga xam ne yéen a bokk parti moom nangu na ne am na ñaari nationalité kon soxla tur ngay daw ci kaw Abdoulaye Wade yow ki nga xam ne mooy sa chef de parti Macky Sall da la wóor na ndax am na ñaari nationalité am ñettam déet dama ne Moustapha Moustapha Diakhaté nag jot na pour ñu wax ak yow président de la république dañ koy ormal Abdoulaye Wade li mu def ci réew ko ci nekk fi ba pare nga taxaw temm ne léegi Ablaye Wade avantage yi mu amoon yëpp dañ ko root ci nangu ko ba pare na ko état Sénégal topp pour li mu def noonu du yoon dama ne Moustapha Diakhaté bëgg a siiw war a bëgg wane ne Macky Sall yaa ngi kaas bu mu la tax a wax loo xam ne ëllëg da ngay am gàcce ndax tamit nañ waxante dëgg Ablaye Wade kilifa la te xanaa da ngaa jàngul Moustapha Diakhaté ndax loi ak li nga xam ne mooy adoption adoption maanaam euh, nationalité dafa am nationalité d'adoption ak nationalité boo xam ne yow sa bopp sa yaay mun na nekk francaise sa bàppa nekk sénégalais loi bi nga xam ne moo rédigé adoption loi francaise mun na adopté yow nga nekk nationalité française ci kaw nga bëgg ko parce que sa waajur bu jigéen mooy français Moustapha Diakhaté xanaa xooloo article 45 loi 12 loi INEA bi 14 bi nga xam ne décret de l'Assemblée nationale française a voté pour l'adoption d'une nationalité requise à une forme conforme de la loi 12 Moustapha Diakhaté je te dis de revoir les constitutions françaises et sénégalaises pour nga mën a xool Ablaye Wade nekk na candidat combien de fois présenté wul candidat combien de fois l'État sénégalais et la justice sénégalaise n'a jamais rejeté la demande de candidature de Maître Wade xanaa ñu bàyyi ab Abdoulaye Wade jeexal mandaam ngeen di këppi këppi ngappi ngappi di wax ci kaw Moustapha Diakhaté am na lu gën a ñor actualité lu dul topp Abdoulaye Wade ci loo xam ne tey dafa ñaaw Abdoulaye Wade nañ ko bàyyi mu dal mag la buñ ko te li yëngalu ko ki nga xam ne moom cundum moo doon yëngal gouvernement taxaw ci kanam Abdou Diouf ak Senghor dara mënu koo tiital du yow yaay tax Abdoulaye Wade wàññi dangaram te nag Moustapha bëgg lu neex Macky Sall bu mu la taxa nga ñaaw ci ndax le président Macky Sall moom ci boppam du ma tuumaal nit parce que samay bët mayu ma ko waaye samay nopp may na ma ne Moussa président Macky sal am na ñaari nationalité parce que kii dem def débat bi démb ci TFM Moussa euh, Seydou Gueye moom am simple Seydou Gueye rek moo mun a am nationalité juubul reconnaître ko te ngeen bokk parti bul dal ci ko Ablaye Moustapha tamit bëgg tur bu la jaral yenn parce que le président Ablaye Wade bu dul dara dañ ko war ormal avantage yi am lu mu lay yàqal le président Macky Sall dafa waroon tey lu mu gën gaa gàtt mu yëkkati juróomi million di ko jox président Ablaye Wade ndàmpaay parce que gën gaa gàtt le président Ablaye Wade suqali na Sénégal ci ay yoon dama ne nit ki du soxor nag ak soxor lay nuroon yenn ab coxor la dañu waxante dëgg am na lu ñor réew la loo xam ne moo gën a taxaw mooy priorité waxal ci bilan président Macky Sall parce que ci campagne nañu jëm xulal ci bilan assemblée nationale parce que ci campagne nañu jëm li nga singale Ablaye Wade mënu la indil ay électeurs dalay yàqal Moustapha àndal ak dal te xam na ne réew mi nag benn bopp la kenn mën na koo xar ñaar nationalité mooy lan qu'est-ce que ça veut dire nationalité Ablaye Wade français la waaye ju ju jëlu ko France naar yi la jël mboot leen kottu leen pourquoi ngeen di dal ci kawam ñun duñu ko nangu Ablaye Wade a toujours rejeté cette nationalité mosu ko jël kon tey Ablaye Wade bu ko neexee nekk candidat en France est-ce que la loi française da koy nangu da koy bañ. parce que Sarkozy ak François Hollande Jacques Chirac Mitterrand du ñu mës nangu que un africain boo xam ne dafa am nationalité française di porte candidature parce que cette nationalité ne le cette nationalité ne te permet pas de briguer un mandat présidentiel française parce que article 12 code pénal 16 il y a 45 moo ko bañ sur le néant de 12 Moustapha Diakhaté taluma mu mbaay taluma wax taluma taasu mais dama lay yóbbuwaat pour nga xool de la légalisation française des choix d'une décision décisive pour l'article 45 code pénal 12 loi 44 225 aléa du 12 sur 45 4 loi parce que un décret présidentiel unanime voté par un décret de loi 45 par le Sénat français à la doctorale des distinctions bien dictonnée pour une loi fédérale voilà ku

baax moom Serigne Cheikh Gueye bu Serigne Modou Serigne Cheikh Gueye bu Serigne Modou Diarra Gueye euh, euh, euh, xawlu ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar moom Serigne Cheikh Gueye bi nga xam ne nag mooy Baye Fallou Serigne Bass Baara moom ci boppam wax na ma nag ba taay nee na ma Kouthia incha allah bëgg naa ci yow waaye tamit nganale nga xam ne Serigne Bass Baara da ko war a am dañ ko war a amal foofu ca Géejawaay ca école bi nga xam ne nag mooy école Serigne ca Géejawaay la 4 avril nee naa ko incha allah man la. trois laay gëj a jël ñam dóolu ko sama gémmiñ ndax xam naa ne lépp lu ñu fay lekk ndeysaan barke lay doon ndax fa sëñ baara bas baara fas yéene taxaw rek xam nga ne foofu xéwal ko dafay bëri ñu koy ziar di ko ziar bu wér la waxtu du ko raw ci seetaan émission Kouthia Show ne non seulement dafay dindi stress waaye nag day gën a tax euh, sa xol di euh, di féex ba loo jàpp rek euh, da nga ko bàyyi ci fekkoon na ne leneen loo xam ne nag naka sudul noonu la moom soxna Diarra Guèye ziar nañ ko bu baax ci ngana li ne dina ko am la 4 avril foofu yal na yàlla may ñu egg ceeg jàmm moom nag diggante sëriñ bi baatin moo dox seen diggante na ko yàlla rafetal mu gën a ndax Baay Faalam la nuyu nañ bu baax ki nga xam ne mooy Assane Guèye nekk ca foofu ca France ak Aïssata Tall ak Seydou Fall ña ca dëkk bu ñu naan Montargis Montargis euh, Montar Montargis euh, Montargis moom ca France ñoom euh, Fatima Diallo depuis Thiès tamit nuyu nañ ko waaye Assane Gueye Aïssata Tall Seydou Fall ca Montargis yal na yàlla defal jàmm nuyu nañ tamit Adja Aram Mbeng nekk ca Paris ak Adja ak Abi Ñaan ñoom Sanu ñoom Dielo ñoom Fa Bintu Yacine Adja Tine depuis ca France ñoo ñu nekk ca diaspora ba ñoom vraiment kontaan nañu Ndey Ndiaye ak yaayu bébé Ndey Fall ak Ibrahima Gueye ca Grand Yoff koo ñu daaru ñooñu nag wax dëgg yàlla ñu leen di gërëm parce que yaay moo ma fekk ci bii di Ndeye Euh, di euh, moom moom Ndeye Ndiaye ci boppam moom na ma sama doom bii di bébé euh, ndey faal ak mag ji di Ibrahima Gueye ca Grand Yoff wax dëgg yàlla dañuy xëccoog sama yaay télé bi ndax sama yaay mooy seen maam ñoom sax ne nañ ko yaay maam Kouthia nañu seetaan noonu nag tax na nag moom wax dëgg yàlla bés bu jot rek day am mbégte contentement ci doomam yi fekk la ñu seetaan Kouthia Show maire Khady Sow depuis Yarax ñu lañ ko yaay Fat Sow madame Diop ñu am mbégte contentement ci mag bu mag tamit di ko sant di ko gërëm waaye di gërëm tamit ki nga xam ne nag moom mooy Serigne Gora Gora Seye Gueye mi xam ne incha allah jour anniversaire Kouthia samedi 12 mars ca Thiaroye Azur ca terrain football ba fa nañu amalee euh, journée bi nga xam ne 99 noms de Dieu yi maanaam téeméeri tur yàlla yi nga xam ne dafa manqué benn fas nañ ko fas yéene nag euh, euh, defee journée boobu mu tomb ak anniversaire El Hadj Abou ñuy ñaan nag képp koo xam ne jege nga ci jotaay boobu nga fay dem fa ndax tamit xéewal la ci tudd turu yàlla waaye tamit di ko fësal yana yàlla may ñu egg ci jàmm Serigne Goro Seye ziar nañ ko ak taalibe yi nekk ci Europe ak bitim réew yëpp rawatina Youssou Diouf nekk foofu foofu nga xam ne nag moom mooy ca Angleterre ak ki nga xam ne mooy Khalis Cissé nekk ca France ñu ngi koy ziar ak mboolem taalibe Pape Samba dañuy jëlee Abidjan Abidjan nag balaa ñu koy jële ma waxaat leen na caba animatrice ba nekk ca Walfadjri otom baa paan moom ci boppam mu paan animatrice bu ñu naan Fabel ñoom ñaar ñëpp paan paan xaalis paan oto panne batterie panne essence man mii maa leen dimbali ci kàttanu yàlla ak sama loxo bi ndax sama loxo bi laa jël ñaan yàlla na yàlla nang ma suturaal nag ma sagal oto bi bu ma ko tegee loxo bu ñu ko poussé mu tàkk ñetti yoon laa ko dóor chauffeur ba jibee la tudd ca Walfadjri lay liggéey bi mu cuqee dafa ne ma grand lii du tàkk cuqaat troisième fois oto ba tàkk dafa bàyyi oto ba ñëwaat ba ci man jébbalu na ma grand neexul ba neexul mais doo moromu saa njoogu fii doo moromu saa njoogu te nag caba saa jàppal wax ji ma lay wax caba nee na ma duma sa morom maa la mën li may def maa ciy buur faabel tamit toog raam ne ma naa leen dimbali sudural leen ñoom nangu nañ ne saa ñoogu xamul dara kon saa ñoogu jàppal say collègue ñoo njëkk ne xamoo dara xamoo tous ci diine ak ci comédie nangu naa loolu bu yaay ay eh, caba du ma waaw fajir léegi nañu dem seeti Abidjan ci waxtaanu Carême ci yor yoru Carême jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di nuyu ki nga xam ne mooy Jean Samba Thiam bi nekk ci réalisation bi ak ki nga xam ne mooy Aziz Thiandoum waaye ñu koy wax Jano Thiandoum Jano Thiandoum nag wax dëgg yàlla sant bi ci boppam rek suñu xel day dem ci cardinal Thiandoum moo tax ñu koy jox tér bu wóor moo ki nga xam ne mooy caméraman bi ma jàkkaarloo di yaa réservé bi nga xam ne wax dëgg yàlla bu ñu amee émission carême da ciy sawar lool mbokk yi chrétien yi ah nañuy partager li ñu am nañuy séddoo li ñu moom nañuy maye tey dimbale te def li nga xam ne moom la carême bi santaane guney chrétien yi nag na ngeen tamal seen bopp di ñëw ci jàngu bi ci dimanche bu ne di teel a yeewu ku ci amul liggéey na nga jege jàngu yi boo ñëwee ngay liir lire Bible waaye di jëfee li nga xam ne moom la père bi wax mooy dimbalante solidarité ak partage bu fekkee ne am na ku lii ku nekk ci ligne bi ay waay Samba war ci ligne bi ñu jëm koo dugal ci ligne bi ay waay Samba ndol ndol Jérôme Tine maa ngi koy nuyu waaw kooka la maaleykum salaam ay waay Samba maa ngi lay nuyu seen waay na def. maa ngi lay nuyu waay seen nanga def. lan nga bëggoon xam ak loo bëggoon gindiku. waaw maa ngi ñoo ko bokk eh waay Samba. maa ngi lay amiin amiin waay eh waay Samba. waaw man a ah, loolu yàlla koy def nit gis ko rek ne ko da nga ma neex. loolu kay dama tey kay. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñoo ko bokk gis nit ki wax ko dara nekku ci. jërëjëf. commencé kay waa kay ñu jàppoon dañ koy bàyyi. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan jërëjëf ñoo ko bokk gis nga man tamit noonu la ma iraandaw Ndaw neexee ndax buy waaraatee ci dëgg la koy teg noonu la rek mbir mi dañ koy defante rek jërëjëf ñu ngi lay gërëm di ko sant wax dëgg yàlla wax na lu am solo torop nee na man dama ko neex ay way samba loolu dafay am yàlla mooy def nit ki ci boppam boo tax taxawee rek am na ñoo xam ne danga leen di neex eh waay eh eh waay Samba gis nga mbiru yàlla yàlla dafay sàkk doomu aadama rek nga romb rek ñu bëri neex la te yàlla tax kon loolu li tax mooy na fexe ba sa xol rafet ndax bu sa xar kanam rafetee daa gis ku gis sa xar kanam gis ci muuñ sa gémmiñ daa dee yaatu ngay ree rek war ku la gis xam ne kii am na mbégte da ngay yomba neex i i waay Samba kon chrétien yi nañu delluwaat ci yàlla bu fekkee am na ku ne ci ligne bi i eh, Samba ñu dugal ko ci ligne waaw kookaan la allo waaw kookaan la asalaamaaleykum salaam eh, Abdou maa ngi lay siyaar de ah kooku di xanaa pël la na nga def kookaan la maa wuri ah, nga ne maa wuri wuri ah wuri ba ndeysaan ndeysaan wax nga dëgg wax nga dëgg waaye kii de sama kalu séeri sama kalu halpulaar la. maa maa ngi bu baax a baax a ñu ngi lay déglu mbaa jàmm la tukkuloo ci. maa ngi lay ndokkeel bu baax ci seen koor googu ngeen dugg. jërëjëf jërëjëf waay. ki ko ñaanal jàmm di ko ñaanal àdduna ak Sénégal. ak monde entier bi yëpp. waay jërëjëf waay lii de lu rafet la. man nag de ab dama am benn problème boo xam ne problème bu extraordinaire sérieusement la. ban problème nga am sama mbokk mi. man de su ma gi ñoom réer boobu say nag ñoo la réer. ja ja jooy jaarul jooy yal na ko yàlla leeral. yal na ko yàlla leeral ci karam gi. man kay xam leer waaye leer ko maa ngi ñaan ci karam gi. li la la dem te war a leer yal na ko yàlla leeral waaye léegi bu feeñee nag xanaa yow Samba di ma neexal. ok oh, dama bëggoon su ma fekkee nag yi feeñ. daal di nekk ci sa diine jooju daal di. nekk ci <laughs> ah, yow nag sama kal bi nag yow nag yaa ngi bëgg saalit nga ne yow su ma feeñalee say nag di nga di nga ñëw ci yoonu chrétien. <laughs> su ma diggante nag yi bu benn nag feeñee wala ñaar kese wala ñett wala ñeent wala cinq nag sax kay ma tuub. Eh, loolu de kon de damay ñaan ci yàlla rek yàlla rek moo xam fu muy feeñee waaye bu sobee yàlla ci sama ñaan gi nga xam ne karam gu sell gi may sell bu feeñee rek nga xam ne feeñ na te bañ cee def loo xam ne kat da nga ko def rek <laughs> loolu dara nekku ci de ma ne. waay ay waay na ko yàlla leeral ci karam gi nga ne noo tudduti. ma ne nan nga tudduti nga ne. man wuri ba laa kal yow de alpulaar nga bu soobee yàlla ci sama karam gi ma woor. ak bépp abe dinañ la ñaanal yàlla leeral ko ba mu leer nañ ci karem gi dégg nga. waaw léegi su su leeree su tuubee nan la naka lay demee projet bi ñu ñu demee. ah da ñëw rek nga topp yoon bi li ne ci yoon bi xam nga ko ñëw ci jàngu bi soppi tur bi te def li nga xam ne moom la yoon bi santaane rek waaye karem bi bu fekkee ne ci karam gi la da koy tàmbali de. ah man <laughs> ay sama man de sama diggante xaal pulaar yi nar naa neex yow loolu bu fekkee da ngay tuub kay looy xaare ba kanam bi jàll ñun kay suñu suñu koor bi méttiwul heure bi ñu ko lekkee rek nga koy lekkaat. Eh, man dafa am ay comprimé yu koy yoo xam ne bu ci gi laa kon bàyyi ma ñaanal la bàyyi ma la yàlla feeñal say nag kese nga continuer ak sa diine dégg nga jërëjëf ay eh, waay samba ay eh, sama mbokk xalpulaar yi génne ko ci ligne bi ay <laughs> waay samba maa ngi doon wax loo xam ne dafa am solo. diggante ndol ndol ak faajut jàpp ji foor jàpp ji feer ak zawal ci papam mboolem xale chrétien yi na ngeen xam ne wax dëgg yàlla carême bi buñ ci jugee ngeen continuer ni ngeen meloon ci carême gi di partager lu waay am benn te sa morom am ko xaj ko ci digg bi jox ko ko bu leen dugg ci waxu jàmbur bu leen laal alalu jàmbur bu fekkee am na ku ne ci liit bi i way samba ay <laughs> way ay way ay wara muy waaj a dugg ci ligne bi i eh way samba i eh samba ngeen dugal ko ci ligne bi samba dugal i eh ko kan la allo salaam allo maaleykum salaam ñu ngi lay déglu salaamaaleykum Abe waa kay jërëjëf waay Abe man la man la Thérèse ah Thérèse waay Thérèse Thérèse Faye war a Thérèse. Mendy man eh, la <laughs> Thérèse Faye. man de sa kal laa ndax man maa ngi sant Diouf Abe Diouf. waaw waaw ay kal la ñu kay. <laughs> waa Abe. waaw. Abe naka émission bi yéen a ngi waaw ñu ngi koy def rek ñu ngi koy def ci yoon bi. Abe ñu ngi lay seetaan. ah jërëjëf bu baax jërëjëf jërëjëf. mais Abe est du xam nga man li may rey yow Abe. lan moo lay rey ci man. ay ay Abe man de soo ay waay Samba rek. Eh, eh, eh, dama tam wax dëgg yàlla ay waay Samba su ma waxee ca waxuma ay waay Samba day mel ne li ma wax amul. <laughs> ay waay Samba Samba. <laughs> ay waay waay waay doon ma doon ma ay waay Samba bi. wax dëgg yàlla nag ci këram nañu nekk waruma ne fii sax di Samba ak yow. moo tax ma ne soo ma bëgg a dox kon ma ñamal la ko comme que loolu mooy tax doo yëg doo yëg. métti tu kare bi. abe soo bëggee sama ko di continuer rek dem ma mosal aywaay samba bi. aywaay samba aywaay samba aywaay samba <laughs> bu fekkee ne am na ku nekk ci lii aywaay samba. aywaay waay waay waay abe kontaan naa. samba waay samba. <laughs> aywaay samba ay neex na man de soo bëggee may kontaan rek dem ma defal aywaay samba. aywaay samba <laughs> xam nga tudd samba yombul. te sama baay sax bala tuddoon damay ko du chaque jour boobu ma ko déggee rek may ko ne di woo rek di woo rek di woo rek sama xol bi di bañ a dagg ay waay sama ay waay abe kontaan naa eh, ñoo ko bokk Thérèse ñoo ko bokk eh waay eh, Samba eh, Samba gis nga nit ku ne xoolal kii lan moo koy rey ci abe nee na abe bu waxee ba ne ay waay Samba rek koor gi dootul métti ci moom kon nit kii dafa war a xool li muy wax teg ko ci yoon ndegam ay waay Samba bi dama ko tàmm rek mu ne nit mu mel ne buy wax rek ne eh waay wara nga ne eh mbay war a keneen ne eh terme la rek boo xam ne danga ko tam ndekete terme boobu dafa dem ba neex nit ki nga xam ne suma ma koy wax mu dugg ci bopp bi dootul yëkkati këram bi eh way samba eh way samba eh, ay way samba samba samba eh way samba <laughs> mu ne kon waxtaanu Karim ci yoor yooru Karim Pape Samba Thiam eh, ay way samba bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi nga dugal ko. si Samba allo. allo waaw bonjour. waaw. bonjour bonjour. bonjour eh, bon eh, il faut dire abbé. waaw nan ngay gisee ni rek naan ko bonjour ça. dama ne abbé Jean laa waaw maa ngi lay dégg je vous écoute. waaw ah, ça ça. alhamdulilah je vous Je voulais participer à l'émission. On vous entend, on vous entend, tout le monde vous écoute. Parlez. Alors, Eh, parlez, vous êtes en direct kay. Alors, André. ma ko ci li bi waay ay waay abbé ba boobu ba tey nit ñi xamoon mu ñu yuxu ci. waaw abbé man dama may def ah, ma bëggoon euh, euh, xam nga daa am fii ngay liggéeyee. waaw te musulman yi dañuy musulman yi dañuy nekk sa kanam. ñoom ñoom dañuy dañuy nekk foofu di lekk ay relève chocolat ci kanam te loolu vraiment dama. mbuur lan nga ne mbuur lan. relève chocolat yi ay bi bay li ngay wax waay ah loolu moom ay. ah bay bay bay coupé ko waay ay waay Samba Samba coupé ko Pape Samba coupé ko waay ay ay ay coupé ko waay ah abe amul lenn lu koy yëngal lu dul chocolat. wax naa leen fii ne abbé bi mbuur ak chocolat ci boppam rek moo mun a yëngal suma koor gi ndax dañu ko tam eh sama koor gi commencé na yëngu waay mburu gu bees taq buy xol xomi nga xoti ko rek ba mu ne kuruj kuruj nga jël chocolat ne ko ci ñett mel na koy peinture dem nday joor dem ca càmmoñ raax raaxaat ne ko wis wisal boo ko kepeere ba mu yuut ay wuy hmm. ay samba ay waay samba mburu ak bu ñu xot ci bopp ba ba ci bopp ba muy ñaari cuukeel yu daje nga raat ci mu mel na kuy peinture première laso nga delluwaat def deuxième couche xuus ko képp ko yàlla boo ko xam ci digg bi mu yuutal ci géej boo ko keppal keppal rek boo la xam ti ko dem ci kaw loo doon abe abe abe sa xel dem ci soog ay ay ay ay abe koor gi est-ce que dina egg wara du egg yàlla rek boo xam waxtaanu kooru kareem ci bëccëgu kareem ak abesan e eh, way samba ma xool ndax bii sedd na heure bii laa naanoon démba su ma neexee naan ko tey eh waay eh waay Samba. jigéenu Maodo Ndoye yow laay wayal jigéenu Baga. di neng bàyyi saaliw loo yàlla la may nañ ko Tata Fanta Tata Dieynaba Adja Sall Kumba Sissoko euh, Funti Sall ak Arona Dembélé Omar Dembélé Samba Dembélé ñoom ñëpp ñu ngi ci Paris dëkk bi ñu naan moom Monteuil euh, de la part de tout moom moo fa jaar groupe de Wali Seck Fallou Clavier Mbaye si Ndiaye Lamine Nar Cheikh Anta Fatou Ndiaye Indotel lu bees foofu nag euh, sama gars yi ñoo fa jaar may leen ko di am mbégte contentement di nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy Thierno Hamidou li xalif bu Cerno Mamadou Moussa liy dëkk ci dëkk bu ñu naan Daara xale yi be xale yaa be ñu koy nuyu bu baax di nuyu tamit soxna Koumba li depuis Mbour di am mbégte contentement bu baax ci ki xam ne mooy xalif bi. di Thierno ah, ah, Hamadou Ly xalif de Thierno Mamadou Moussa Ly nekk ca Daara xale yi bay ñu koy nuyu bu baax Daara xale yaabe ko ziar tamit ak soxna Kumbali nekk ca Mbour am nañu mbégte contentement mu mag ci soxna Kumbali waaye tamit di nuyu Fat Bintou Gaye am nañu mbégte contentement ci moom nuyu nañ tamit Thierno Seydou Nourou Ba chef religieux foofu nag ca dëkk bu ñu naan Paate Galo à ah, Île à Morphil département de Podor ñu ngi koy nuyu Abdou Sidi Ba mooy suñu témoin ziar ko bu baax Abdourahmane Ly responsable politique APR ca Rouen ca Normandie Mar borom Thiès yal na ko yàlla may fan bu gudd wax na gàmmu bi nga ne mooy gàmmu sëñ Mansour Sarr te budi le 7 mai la na ci yàlla egg ak di xarit Mohamed Victor fils de Serigne Soubérou Mbacké Baye Fallou borom daaru ci moom le 16 incha allah avril le 2016 moom mooy gàmmu bi nga ne day amal foofu nee na nag Kouthia boole naa samay invité yal na ko yàlla defal jàmm ziar suñu papa Thierno Mamadou Hadama Gueye xalif Thierno Hadama Gaye foofu ca ñànk idi ak soxnaam Adja Hawa Dia ziar tamit Adja Aysata Hadama Gaye ak Adja Fati Thierno gay ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar ziar tamit bu baax ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha si Jamil bu Serigne Mansour borom daara ji ak suñu yaay euh, euh, soxna xaar ca Tiwaawan yal na yàlla defal jàmm gërëm bu baax ki nga xam ne mooy euh, seriñ Habib mu Mouhamadou Sëñ Mansour si borom daara ji di wàlli kaamin ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram gërëm na gouverneur bu Thiès ak ki nga xam ne mooy Alassane Sall boof nekk ministre de Thiès ci taxawaay bi ñu ko taxaw ci journée du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam man nag maa ngi wax nag ne wax dëgg yàlla El Hadj Abou nag war naa nekk ministre bu ma nekkee ministre ci gouvernement Macky Sall wala gouvernement bi di ñëw xaw ma ndax Macky day dem war a toog war a day cóolanti xam naa ne daal ku ma jël ministre moom doo ko rëccu ndax xam naa ne dinaa la liggéeyal ba nga kontaan waaye tamit dinaa la defal loo xam ne wax dëgg yàlla da nga kontaan ku ko essayé doo ko <laughs> doo ko bàyyi ñamal neex ku ko ñam di nga tàqamti ko di gërëm bu baax waaye di waxaat caba caba si la bi ñas maa ngi lay ñaan ci jëmm Rasulullah dimbali ngir yàlla caba caba mënul paan jëkkër paan oto mënta ne ñaari benn rek moo ciy paan mën naa paan oto waaye am jëkkër waaye paan jëkkër paan oto loolu musiba la waaye nag kenn du kenn ku dul ki ànd ak moom di fabel fabel signature baa ngi nii signature baa ngi nii moi Fabel et caba nous reconnaîtrons que Kouthia est le roi du rire ça Ndiogou n'est rien Kouthia si tu ne dis pas ce que tu as vu hier c'est nous que nous avons signé signature Chaba et Fabel nee nañu ñoom reconnaître nañ na ko saa Ndiogou xamul mënul ci kaw Kouthia suturaal leen ci oto bi nga xam ne moo paan ma bañ ko wax moo tax ñu signé ko nii kon saa Ndiogou say jigéen ñi nga xam ne dañ laa càmminoo nee nañu yow xamoo dara mënoo dara doo incontournable ndax gàcce gi leen jàpp te ma fekk ko su ma noppee ñëw nekk papier bi kon Sidi Lamine Niass dimbalil ki nga xam ne mooy Caba te Caba yow pour débaucher la jëlee la Walf Fadjri indi la TFM dana yomb lool ndax oto bi nga yor tuuti na te oto monaat la <laughs> ñu dem seeti ki nga xam ne mooy Alassane Dramane Ouattara Alassane Dramane Ouattara nag mere na lool coow li nga xam ne moo am Sénégal nee sax yoram nekku si mais affaire mandat jaru ta wax ay ñaari tur ñaari nationalité ndax loolu moo indi woon coow ba moom ci boppam en fin de compte moo mujj nekk président Côte d'Ivoire nañ ko rafetal rek Alassane Dramane Ouattara ñu dem seeti ko. suis vraiment je suis vraiment content content je suis vraiment content parce que pourquoi moi je vraiment content c'est parce que vous savez avec la nationalité c'est quelque chose de sensible il faut pas en parler pour euh, un candidat qui qui prétendre être, un président de la République de pays parce que même Laurent Gbagbo avait dit que Alassane Ouattara Alassane n'est pas ivoirien 100% je suis nationalité burkinabé ivoirien c'est ça qui amène le problème d'un pays Parce qu'il y a des nationalités d'adoption. Vous savez que oui. même au Sénégal, il y a un caméraman qui s'appelle Yao Zévé. Ouais. Mais il est ivoirien. Mais dans, dans, ans ou dans 5 ans, il peut être nationalité sénégalaise parce qu'il est resté au Sénégal plus de 10 ans. Si vous restez dans d'être nationalisé dans ce pays si vous le voulez. même si vous ne voulez pas, cet État vous reconnaît comme un Sénégalais parce que vous avez 10 ans dans, il faut pas prendre ce problème pour quelque chose parce que jamais un Sénégalais ne va se présenter ici en Côte d'Ivoire pour être de la République parce que il y a, y, a, y, a y a des lois d'adoption il a des nationalités qui vous permet d'être candidat qui vous permet d'être candidat ma wax ko tuuti ci olof pour ma indi coow bu seddi ci Sénégal Abdoulaye Wade nekk na président ba jeexam mandaam nekk candidat ñetti yoon yàlla dimbali ko musul gagné yàlla dimbali ko même dossier yi la ba nekk président bu jeex na bi wa wabinaje watwapadi waki waki waki wa wabi amu amu sɔlɔ aduna le gidi neki wako ti nekk mun a neke sa ni bu ɛtala tse ndayi ati ci muna mu ne bugu neka eh, tuba Senegal la bugu neka lolu amu sɔlɔ afɛ raciste la bɔxante ci xeet bɔxante ci xeet wala mu wana bɔxante ci xeet loolu baaxul ma wane nañu bàyyi wa jooju loolu du tax affaire mu développé ni am na nationalité bi amu nationalité bi sénégalais la bi français la kenn mu am solo la moo am solo parce que li nga wax ni da wax ne je suis sénégalais ñi ko war a saytu pour xool ko dañu gëm gëmu nelaw parce que Abdoulaye Wade nekk na candidat ñetti yoon kenn mu su waxoon ne yow do sénégalais mu nekk président ñaari manda kenn mu wàllu tey mu dem ba coobi de nga wax ne doomam ne na lii loolu affaire ñàkk a fayda loolu la affaire ñàkk fayda ah, nga ba ma olof bi leeru mais afa ñàkk a fayda taa man man dund naa boobu fii Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo taa na wa fii ma Alassane Ouattara bila wala talaay Alassane Ouattara du Ivoirien yaa ngi nekk Burkina Faso yàlla lan la mujj def ma nekk président Côte d'Ivoire ma ma mujj nekk président Côte d'Ivoire moom yàlla moo dee loolu. nii ne wax jooju ma dégg Sénégal bu mu jëm kaw parce que Macky Sall kenn xamul la la ndax am na beneen bu fekkee Macky am na beneen na. ki taxaw di wax bii am na ñaar te bi mu waxal am na am na benn na na na la mujje wa dafa rafet wala la moo jega suqali senegal mu ngeen jëm ngeen ba mana walla d'Ivoire laa wala lijjanti waruma lijjanti Sénégal waaye ma ki dafa baax bugguma mu am problème ci benn yoon ci lu ko yàkkal ñooñu war ko di wax wax nañu bàyyi wax boobu ci suuf en en na day naa wabi day naa wabi sama yo nekkul Saint Gade yoo bi sobrey moo dugal mais bëgg mu rafet kese le problème du Sénégal c'est pas mon affaire je parle parce que Macky Sall est un Africain Abdoulaye Wade c'est un Africain c'est Sénégalais moi je pense qu'on doit défendre maintenant les nationalités nous tous Sénégalais Ivoiriens Maliens Guinée-Bissau Guinéens Mauritaniens on doit avoir nationalité seule nationalité CEDEAO africaine Mais c'est ça le problème. Mais Sénégalais comme ça. Lu tànga kam wabakul. Wawan la. jàmbu du wa. Waxasa wa moo gën wako jàmbu bàyyi wa boobu. Wawan la. Wawu jàmbu du ko wax ni ma ko wa. Bàyyi boobu nga wasa wa. Wawan la. Wawan la. Wa jàmbu du wa. bàyyi wa jàmbur nga wa sawa wa wala wa wala waxu jàmbur du wa bàyyi waxu wa wala eh wa wala waxu jàmbur du wa wa wala wa wala eh wa wala waxu jàmbur du wa bàyyi sawa wa wa jàmbur du wa wa wala waxu jàmbur du wa eh eh sama yoon nekku ci waaye waa waa waa la eh eh waa waa la waxu jàmbur du waa waa waa la waxu jàmbur du waa waa eh waxu jàmbur du waa eh waxu jàmbur du waa eh waxu jàmbur du waa eh waxu jàmbur du waa eh waxu jàmbur du waa nyɔnu ƒe ƒe tamo sɔmu gologbolo ina kɔ le nye sɔŋgɔ le nye kende wo yo maleke maleke me ko wo am anniversaire à Mame Boye depuis euh, Golf Sud Néna Gaye Aïssata Tall tamit euh, Néna Gaye Aïssata Tall TFM Baye Samba Mbeng vivant en Espagne mais actuellement en vacances au Sénégal chéri Ndeye Dieye depuis Yarax ñu koy nuyu di nuyu tamit Abdou Thiam journaliste foofu ca Rail bi FM et sa faatu euh, faatu Fatou yi madame Thiam et ses enfants Ndeye Fatou Thiam Mame Diarra Thiam Khadim Thiam depuis plan Jaxaay unité 19 waaye di wax mention spéciale maire yi nekk foofu unité 19 yëpp te dëkk ca plan Jaxaay rawatina nag ñu koy jaarale suñu yaay di di ko di ko jaarale nuyoo si suñu yaay maire euh, Fatou Ngom bëgg sëñ Fallou di taalibe sëñ Touba depuis plan Jaxaay unité 19 Pape Thiam ak soxnaam Kine Seck depuis plan Jaxaay unité 19 nuyu leen di nuy tamit El Hadji Alessine ancien directeur bu impôt et domaine nekk foofu ca Euh, liberté 6 extension ak njabootam yëpp ñu leen di nuyu di leen ñaanal fan bu gën a wér gu yaram di jox ndax dajee gars yi la samedi 12 mars ca Caaroy Azur ca terrain football ba bésu 99 noo de jéey yi nga xam ne Serigne Gora Seye moo koy amal tey muy tomb anniversaire u ñu ci ñaan nag bépp koo xam ne euh, euh, yoonu l'islam neex na la waaye tamit turu yàlla yi intéressé na la ba nga bëgg a xam ne ci biir nañ fa dox daje incha allah samedi le 12 mars mooy anniversaire u ci euh, woote bi nga xam ne Serigne Gora woote na ko ci turu yàlla yi nga xam ne nag 99 noo yooyu ñu mun koo Bousso Kadia ñoom ñëpp waa terminus 74 Anta Khady Raki Diatou ak Awa ñoom ñëpp kontaan nañu di gërëm tamit Serigne Cheikh Gueye mi nga xam ne mu Serigne Modou Diarra Gueye di bàyyi faalu Serigne Bass Baara ci nganale le 4 avril le 2 avril ca laay tàmmali woor le 4 laay wari ndax bés boobu bésu xéewal la ndax Serigne Bass Baara fu mu teg tànkam xéewal rek moo fay daw rawatina nag ngay xéewlu di jot xéewal mbégte ak contentement ci lépp nag mbokk yi ñu ngi nga xam ci yàlla egg moo leen ak aram 3 lion Pape Samba Thiam moom ci boppam ne ma El Hadj Abou Bilal jéemal lijjanti ndax wax dëgg yàlla waxtu bi ñu wax ne moom la ñu wax ne moom lay jot bu jotee dañuy dagg may ñaanaat euh, ndimbal ci di tàllal loxo le président directeur général Youssou Ndour di ko ñaan Mamadou Ibra Kane ak ki nga xam ne moom mooy Birane Ndour waaye tamit spécialement di ko ñaan ki nga xam ne mooy suñu directeur di njaga Ndour mu yokkal ñu rek tuuti rek ci ay minutes ñu mën a dem ba 19 heures et quart war mu tegal ñu tuuti ndax des fois actualité bi dafay neex ba nga xam ne ñetti élément day tuuti tey ñetti élément la quatrième élément bi moo nekk nii waxtu bi moo ñuy dab nag duñ ko mën a wax duñ ko mën a def waaye nag ma ci wax ne incha allah loolu dañuy tàllal suñu loxo rek di ko ñaan ki nga xam ne moom mooy directeur télé bi di Ndiaga Ndour waaye tamit euh, di ñaan ki nga xam ne moom mooy Cissé yor programme bi moom tamit euh, chef de programme ñu ngi koy ñaan moom tamit bu fekkee ne mën nañoo dimbali ñu ñu ab comp rek maanaam 10 ba 15 yoo xam ne nag euh, dañ ko ci yokk programme bi xam naa nag ah xat na waaye bu ñu ko amee moo ñu gënal ware bu amee spécial ñuy dóol ñu loolu ñaan la rek te xam naa ne dina nekk li ñu gënal gàllaaj yi ma yor ak ki taxaw moom mooy géwal a juddu Viviane Wade dafa am benn secret bu mag bu mu fas yéene wax suba ku tardé émission boobu di nga tardé lu rëy waaye mbokk yi dox daje suba incha allah di wax ki nga xam ne mooy Sidi Lamine Niass na dimbali ngir yàlla caba ndax yàgg naa paan otom paan caba paan essence paan waaye Fabel moom tamit nekk animatrice kooku euh, bu fekkee ne xaritu Sa Ndiogou la ne ko Sa Ndiogou bàyyi ndax ñoom ñoo signé papier bi ne nangu ne Kouthia moo mën Sa Ndiogou Sa Ndiogou xamul dara ñoo ko nangu ci mu Jabil Ba ma nga fa woon taxaw moom seede la JB moom nangu na ne Kouthia am na la ko yàlla may ba oto ba paane moo ci teg loxoom neexul ba neexul waaye wal fajiri euh, daal ñu ngi noonu euh, ma wax Sa Ndiogou nag werante xuuxaan tekki tubéy na ma jox rendez-vous ñu tase foofu ci plateau bi ma wan ko ne kuy ak koy saaga du ñu xuloo ndax bu ñu xulooyee rek kenn du la mën a attaqué day saaga kay doy doon saa ñëw ko attention say jigéen weddi nañ la ndax jëmm ji bi taal oto bi ak loxam te génnul poos deful dara non waa Walfadjri yërëm naa leen caba dox daje suba ci même heure bi mu nekkoon ci ambiance bi Abdou Fagay Go Fall Toutou Fatima Evans Jamil Ba Kara sécurité Yaawa Gervais ca caméra ba Abdoul Aziz Thiandoum ca son ba Pape Samba Thiam nekk ca réalisation ba dox dajee ba suba incha